waa Iba waaw euh, ñu demaat ci ci deuxième affiche bi nga xam ne tey moo undu Sa Thiès Reug Reug muy combat bu am solo pour aveniru ñaari mbër yi ak pour aveniru làmb pour aveniru làmb parce que tey VIP seen cercle boobu dafa xat te tey ñaari mbër yi ku ci daan par force danga fay dugg te am na nu muy demee ñaari mbër yi ku ci daan at ka ca daanu ça day dépendre ci manière combat ba ñuy bëre am na xeetu combat yoo xam ne buñ ko bëree ñoom ñaar ñëpp buñ si jógee ñoom ñaar ñëpp dañuy dugg ci ci VIP yi mu nekk ñaari combat yoo xam ne nag ñaari mbër yi li li dal ci Modou Lo Ama moo dal ci Reug Reug Sa Thiès combat la boo xam ne ñaari mbër yi ku ci pronostic juum ku ci nekk am ngay qualité capacité yu daan sa moroom ku ci nekk ci bëre ci mën bés ah ci am ginnaaw donc ay mbër lañ yoo xam ne ñoom tamit dañoo teg seen bët ci li du yor donc te ñëpp xam nañ ni mën nañ faa àgg mu nekk mbaa boo xam ne tamit amateur yi dañ koo soxla monde làmb da koo soxla parce que tournure bi mu mën a indi ci làmb bari na et mu nekk combat boo xam ne tamit lu lu combat référence lay doon parce que.